maa ngi nuyu mbooloo bi yëpp di leen sant leen gërëm di ñaan yàlla suñu xeex bi ñuy xeex yàlla defal ñu si ndam li may wax mooy que ne man man damay présenté damay wax euh, directement sama adresse si Macky Sall suñu président na jàppale population Sénégal jàppale population Dougar ñu mun ñu mun ñu juddoo fii man mi xam ne maa gën a ndaw man am naa cinquante quatre ans fekk fii sama baay xam ne demoon na guerre jënd suufam bàyyi moom ko mu juddoo fii ñu siy béy di si dund di si lekk di si naan ay naar jóge Maroc ñëw ñëw ne ñoo moom suuf si pikop pikop pikop mun ñu fexe ba nangu lu muy def xanaa mu rey ñu armée nationale bi fa nekk fii ay fan dinañ fa dem xeex ak ñoom ñu génne leen foofu li may wax li ma ciy dolli mooy fii daa bari ay promoteurs yi fi ñëw te ñoom nekkuñu benn daa bari ay promoteurs yi fi ñëw nekkuñu benn Alassane mu ngi fii bon donc nekkul benn promoteur moo fi ñëw promoteur ñëw dañoo bari lu ñuy wax mooy suñu bakkeel la ñuy tayale su suñu suuf dañuy xeex lépp lu ñu mën danañ ko def bu ñu jaree lay dee foofu si biir chute bi parce que ñoo moom suñu suuf ñun ay néew doole lañu dañuy béy di lekk di naan fii amul kenn koo xam ne fii am na fi ay milliards am na fi ay millions ñun ay doom béykat lañu si lañ judd si li ñu nekk. tey jii li ñuy wax mooy suñu mairie bi waa dugaar gis ñu seen bopp. ñun man mi su ma demee def sama délibération pour sama suuf du ma ko am ñaari yoon maa ngi maa ngi déposé délibération du ma ko am bu doomu aadama jógee fële nekk doxandeem suñ ñëwee njox ko délibération loolu du yoon ñun président bi ndax xam ne ñun amuñu maire suñu maire soxlawuñu ko fi dugaar soxlawuñu ko fi Dougar parce que moom bëggul suñu bëggul suñu suñu réussite moom seytaane la baaxul rek ku baax loolu maa ko wax li may wax lu leer man dox naa sama tànk dem naa ba kër maire toog ak moom explique ko ne ko lu tax waa Dougar suñu ñëwee fii sa kër ñu war a ñëw mairie pour déposer délibération danga ngay bañ ma maire mii maa dox loolu def naa loolu mën na ma du ma lakk ay daadaa man ko maire yow yow yow da ngaa mer c'est parce que suñu suuf dañ ko téye pour suñu njaboot te gis naa ne yow da nga bëgg ñu jox la suñu suuf nga yokk ay jàmbur loolu ñu nanguwul moom maire def naa loolu li ñuy mañ li ñuy xeex mooy waa Dougar nañu génn ay kaso kaso pour ñëpp la bu ko ragal kenn ñu rey ñu nit tooñ ñu jël àll jàmbur nañu jara ñu dee